allahu ala sayidina muhammadin wa ala ali baytihi altayibina altahirin wa sahabatihi alxuri almayamin wa man tabiahum bi imanin wa ixsanin ila qiyaami saa mbokk yi fi teew góor jullit mag ak ndaw asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bésu màgg bii waaye balaa loolu dañuy sant yàlla wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin daaw daje woon nañu fii def lii yàlla baaxe waat ñu ren jii ñu dajawaat fii am na ñu ko fekke woon daaw tey ña nga am ñu ko fekkee woon daaw te ñoo ngi hôpital daa guddi mbaada am ñoo ko fekkee daaw tey ñu ngi ay loxo sañ ñoo dem sañ dikk am ñoo ko fekkee woon daaw deewuñu feebaruñu newuñ ci ay loxo ña nga amee ay bor ba ay teggi ay mbedd baa ngi wax njaaxum baa ngi def ko ba ay teggi ay mbedd ñun nag yàlla baaxee ñu ko ñu fekkee woon daaw yàlla baaxi war ñu ñu fekk waat ko ren muy douze mois cinquante deux semaines trois cent soixante-cinq jours ñu fekk waat ko feebaruñu déewuñu newuñ ci ay loxo alhamdulillahi rabbil alamin di julli li sëlmal ci rasulullah sant yàlla bu baax fa ñu passé rek sàmm si na nga ñëw àll ba dañu màggee ci dëkk bi ndax ñàkk lu ñu lekk mu taw ñaari yoon ñetti yoon tey macha allah lépp naat na àll bi lépp vert loolu kenn mënu ko allahu rabbul alamin kon yàlla jërëjëf ñu nuyu nag ñu fi teew ñëpp di nuyu ci teewal préfet ci département alhaaji Mayoro Mbaye ñu bokk benn koñ bokk benn jumaa suñu jumaa jàkk la woon moom mi gannaaw yàlla ay taxawaayam ma tey ji ñu def ko juma ñu ngi koy nuyu di nuyu préfet bi mu teewal di nuyu monsieur Babacar Diop Ndiaye mi teewal le maire Talla ak mosier Moustapha Haydara di leen ziara di nuyu monsieur Aline Sow le maire Aline Sow le maire Oustaz Aline Sow di ko ziara bu baax a baax a baax asura bi ñaar ñoo tax ba léegi bàyyi wuñu ko muy Aliou Sow ak Nassour Dieng ñoom ñaar ñoo tax ba léegi bàyyi wuñu ko bu waram si la mais Sow xam nga kon asura bàyyi leen ko bu yàgg wante ñoom ñaar la xamul lu ñoo ngi def ndax saa bu ñu woowee bu ñu njëkkatee ñoo njëkk a sonn gën te encouragé kon monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax xaalis ceeb tamaate soble kotol suukar lépp lañ jox ah jox yàpp de xaalis la joxe dafa na enveloppe bis macha allah pour nañ ci bëggal xale yi loolu lu réeréy la ba bëgg dañu gën a neex mënuñu tey asura bi dañu koo boole ci calendrier maire bi léegi budget bi dañ koy watawaale asura bi tabaski bi ñu génn nii ah yu ko jiitu yëpp ku nekk imam ci commune am bi jël na awla bu di jox la tabaski bi man dama ne sama kër rek da nga alxuraan jëf am ku ma woo di nga maire ba mais dama ma fa de ne susi de mu kaay otoom yu néewul kenn moo gaare otoom quatre heures tàngaay bi ñëw nuyu ma dama ñëw indi la jàppale maire ci tabaski bi jox ma am bu diis ba maa ngi ñaan fan laay wotee sama xar bi rek day lisaan rek mun ni xar am macha allah loolu lu rëy rëy la monsieur le maire ñu ngi lay gërëm sant la bu baax a baax a baax di gërëm waa police waa police sax tey war ñoo ñëw ndax jaar-jaar waaye macha allah lépp ñëw nañu di waa pompier sapeur ñoom tam ñëw nañu waa croix rouge ñoom tam ñëw nañu ñu ngi leen di nuyu leen ziyaara di nuyu alxaaj njabootu alxaaj nga sa mbay suñu waajur ak ñoom ñoo àndoon xare bi ñu ngi koy nuyu bu baax di leen di leen ziyaara di leen sant di ñaan fu mu nekk yàlla peut ay yërmandeem ak njëggalam di nuyu alxaaj aju sa gay at mu nekk daan teew fii jàpp ci tey ji mu nekk ba jëm réew mu yebal délégation bu am solo rakam ñëw ànd ak Ahmed Saloum Dieng jël benn enveloppe bu diis joxoon bés bi. kon tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko sant taxawaayam ci daara yi ci tant Rasulullah ak ca Makka ñëpp gis nañ ko. di nuyu Seyda Zeynab Diop da daan ñëw fii te kenn du ko jàpp ci kon tey am na ngant mu yebal Seyda su Thioune. asu euh, jum ak ñu mu àndal pour nañ ko teewal ci bés bi jël benn enveloppe bu di jox leen ko ñun ñi lii daf ñu def ngir àdduna def ngir yàlla moo tax ñu koy jagale doomu daara yi di gërëm Adja Aram Seck dem naa këram bi suba teel mu ñu mën a tey dafa am benn conférence waaye incha allah dina teew si ma ne ko jéggal nañu la mu ne ma jéggalee man dinaa ñëw ñu ngi koy nuyu du ko ziar El Hadj Maguette Guèye daan fi at bu nekk El Hadj ma Khoudia Sarr El Hadj Alpha Sow ki suba la ma woo ni ma dafa xaw a jagadi toogaay bi yàggale mënul wante xolam ak lépp mi ngi ànd ak ñun. Chérif Diop macha allah tribune bi bu lii ñëwee ku ko bëgg ma doo ko am macha allah ko moom di gërëm kenn xamaat Sall. daa bi ñaan gi dem na di nuyu Cheikh Ahmad Dame Loum ak ñum àndal doo ci fédération bu mag ba di beral na cant ak nuyoo Ahmad Saloum Dieng at mu nekk ren Dakar la ma woowe ni ma maa ngi fii Dakar ci waajtaayu public maa ju mag ci waaye dama sama kër bi comme dendal boole naa leeg moom maa ngi woon ci tey demu ma woon la ma woowaat ma ne ko demaguma maa ngi fa dem léegi ci laa dem mu jox benn enveloppe bu am solo pour bés bii te loolu lu tey rek bés bu nekk daan jàpp leen jàpp leen jàpp leen dina baax ay ñaanam ay xalaatam alalam ak taam lépp mi ngi ci biir kon Cheikh Ahmad ñu ngi lay nuyu bu baax la bu baax gërëm la bu baax ci comité gi dama indi message ci ndokkeel ci comité gi waaye xam nga gars yi ñaan rek kulla am annu bi xay loolu la gars yi kon dafa ma ne kullu aamin wa antum bi alfi xayr waaw kullu aamin wa antum bi alfi xayr comme wan laa koy wax maa ngi sama waxtu daal damaa war na ko rek kullu aamin wa antum bi alfi alfi xayr jazakumullahu xayran ah tey nag bu ñu xoolee réew mi réew mi ngi dund ak Afrique bi ñu nekk ak àddina bi ngay xool xabaar yi déglu information rajo yi journaux yi ak télévision yi looy gis roplaan bu daanu eke duggoon dee nañu bato bu suux train bu daanu oto bu accidenté Jakarta bu di accident ay nit yu ñu fekk fa nekk néew leen doole ay dëkk yu ñu taal marché yu lakk ay jigéen seen biir nekk sëy ñu fekk leen fa sangal leen te mu nga wax fenn ay nit ñuy liggéey ba weer dee kenn leen fay xale yu jàng bu dee exemple ñu am dara ñu ngi marche bu dégg bëccëg sitting lépp coow laa ngi bari waaye ñun lu ñu gëm mooy loolu yëpp lenn rek moo ko ma nga dind ci réew mi mooy ngi la xale yi yóbbu leen ci daara yi ñu jàng alxuraan yar leen si fekk xale yi jànguñu alxuraan am yaru diine ak lu ñu man di baax moo tax ñoo dee daara ubbi ay daara internat ay daara wàcc ñibbi ay école arabe ay franco arabe ay jardin d'enfants pour jàngal xale alxuraan yar leen ci diine di woo nag parents d'élèves yëpp di woo kilifa yi waa maire yi waa administration gouvernement ñëpp ñu jàppale leen ci loolu ndax bu ëllëgee xale yi bu ñu jàngee diine ñu nampal leen ci ñu yar leen boo màggee dina am loo xam ne di ko jomba wax di nga ko jomba def kon mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yal nañ ko fekkewaat at yu bare bare bari kilifa diine yi yal na yàlla sàmm leen yàggal seen mbooloo yi seen gannaaw yàggal leen ñoom te kanamu mbooloo yi gouvernement bi gouvernement bi ci ko jiite président yal na jàppale ak gouvernement am fi ñu bëgg Sénégal ci naataange ci yiw yal na yàlla dimbali foofu Afrique du Sud lañ na ci ay coono yal na yàlla leen jàppale leen waa presse bi sant nañu leen gërëm nañu leen góor ni jigéen ñi ittihaad bi union bi ñu ngi àndal ñëpp ñoom Mame kan Kane Abdoul Baqi ñoom Seydou Pape Niang Ahmad Niang ñëpp ñii ñoo mag ñii ñoo maase ñii maayan mag ñu jël lépp teg ko ci sama loxo lu ma def baax na lu ma wax baax na maa ngi sant bu baax a baax di leen waxaat li ma nas bi xoon léegi kullu aamin wa antum bi alfi xayr kon alaaji Mouhamed ñu ngi lay xamal ne enveloppe boobu ñu la jox sëñ Idrissa Gueye moo la ko jox nee na newu fi waaye mel na ni mi ngi fi ndax yabal na fi ñi mu am ñëpp te su fi woon kenn sax te ma teew fi day mel ni mi ngi fi kon moom it ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën koo jàppale yàlla gën koo taxawu ba li muy liggéey lislaam ci Sénégal ak biti réew yàlla defal ko ci tawfiix bi jaaxe Seydina Muhammad di nuyu représentant préfet bi fi teew di alaaji Mayoro di suñu xarit di suñu soppe ak sëriñ Aydara mi nga xam ne moo fi teewal monsieur le maire Talla Sylla ak sëriñ Babacar Ndiaye Talla Sylla di kenn ci man ñun ñaar defe naa ba ñu am juróomi at ba tey mosuñoo tàqalikoo muy nit ku baax ku fonk coloré te sama diggante moom it dama ko doonoon ndax ñu damaa juddu fekk sama waajur bu jigéen di ànd ak waajur mu jigéen ba fi may wax ak fu ñuy jëm ñoom ñaari ànd muy xew-xewu bànneex muy xew-xewu safaan kon moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla nit ku disponible la nit ko oyof la nit ku bëgg Cees la nit ko fonk waa Cees la yàlla na ko yàlla gën a jàppale gën ko taxawu oustaz Mohamed dañuy wax lañu daan wax rek moo ñaanal yàlla mu gën naa taxawu gën sàmm gën naa dëgëral ndax jiite mbooloo yombul waaye jiite mbooloo te saa su nekk mbooloo ma nga jiite kenn ku ci gëj kàddu rek li muy wax mooy jaajëfal la ñaanal la tatagal la loolu nag jar naa sant su borom bi subhaanahu wa taala ndax bëri na mbooloo yoo xam ni da nga koy balaa man ñetti at ña nga daan seen ci mbooloo ma yëpp kenn ku ne créé mbooloo boppam wala mu ne ci boppam te loolu wala tanaza'u fa tafshalu wa tazawwadu riihukum bu ngeen xëccoo da ngeen di échec bu ngeen échecgee seen effort yëpp dafay naax saay yow nekkoo ci loolu yaa ngi jiite mbooloo mi ak transparence yaa ngi koy jiite ak dignité yaa ngi koy jiite ak efficacité yaa ngi koy jiite ak effacement yal na la yàlla sàmm gën na taxaw Ahmed Nasruddin kàddoom mënoon naa yé yóbbaale sax sunu kàddu ndax Baye Ndiassé ku baax rek doomam nga amul woon ay taalibe ay doom la amoon te moom mi bokk na ci ay doomam ñi fi toog ñépp ay njabootam lañu ku ne mën ngaa wax ci turam fa tabarakallahu duma wax ci moom li Ahmed Saloum wax léegi rek doy na sëkk ki ngeen di rendre hommage la Xaaji Malick si Maodo waxoon ci moom loolu rek moo doon mission keroog bi nga xamee ni Baye alxaaji Ndiassé làqu na alxaaji Maodo si Malick ba xaajal Abdul Aziz dafay ñëw ci ñu tàgge ko mu jël pilimam bind ni kii ñu ma tàgge day mooy ki nga xam ni yowmu yakunu mualliman wa muxaadira wa ya ummu xiinan fi lmasajidi mutabattilan xad kaane fi xalawat kii ñu ma tàgge day di alxaaji njaase mooy koo xam ni foo ko musaana fekk dafay jàngale foo ko musaana fekk ma ngay gindi nit ñi foo ko musaana fekk ma ngay jiite nit ñi ca jumaaye bu ca jógee ma ngay wéetal boroomam kii de mooy góor gi kon fa tabaarakallaahu loolu rekk doy na ci ki nga xam ni moom ngeen tudde bis bi loolu moo doon mission kon njaboot yi fi teew yépp ku ci ne doomam nga man ngaa wax ci turam Ahmed Saloum rek bu waxee yóbbaale woon nañ waaye góor gi Ndiass sa léppam lii la woon diine Abdoul Baaxi lim si wax léegi fa tabaarakallaahu moom rek mënoon na koo teewal. li nga xam ne moom la ñuy jaamoo yàlla moom la ñuy moom la ñuy yàlla moom la ñuy def lépp ci seen biir àddina même bu ñu doon sukuraat li ñuy wax ci yéen lañ ko jëlee mooy yéen amu kenn mënu leen a fay dangeen am place bi ngeen am ci biir population bi yàlla moo leen ko jageel. yal na leen yàlla sàmmal boppam yal na leen yàlla aaral boppam role bi ngeen di joué ci biir population bi képp koo xam ne nii jullit nga xam nga ni tey ustaasu daara yi bu ñu gisee yoon woo xam ne nii éducation yoon wu jub yoon wu rafet yoon wu sell ci ñoom lañ koy jëlee kon nag bis bii ngeen di def muy bis Achoura day bis boo xam ne nii population bi yëpp tey ci turu maire Talla la te population bi yëpp sensible nañ ci yëg nañ ko xam nañ ko ñu ngi leen ci njukkal di leen wax ni ah yi muy oustaz Ndiassé Mbaye référence la ci Thiès lu bare bañ ko xamee ci diine ci moom lañ ko jëlee moom moo jëkk a gis man moom bokk ci li ma gis moom ak oustaz jiite la ñu njëkk a gis weeru koor je crois c'était en 64 ou 65 ñuy dem ci jumaa yi di dem ci jàkka yi di fa firi di fi jàngale di ci wax loolu buñ ko gisee tey jii ci ñoom ñaar ñu bokk ñun bokk ci loolu lañ ko gisee ci ñoom ñaar lañ ko gisee muy Oustaz Ndiasse mbay muy àddinaam yëpp daf ko jàngale àddinaam yëpp dafa jàngale diine muy la muy wax foofu sax ca ca ca jumaa ja bokkewul ak ay boroom kër ay kilifa ñoo xam ne nii dañuy ñëw ci moom mu leen di jàngal mu am daara gis naa ñoo xam ne nii dañoo dem ba mag soo ko jàng sa oustaz Ndiaye sa mbay moo leen jàngal ma am ci ay références yu ci bare keroog bi ministre Ousmane Seck gaañ yu génn àddina wax nañ ci lu bare pour war na leen oustaz Ndiaye sa mbay rôle bi mu doon joué ci biir Thiès rassemblement bi mu doon def ci biir Thiès ci biir tarixa yëpp fekke nañu aussi jataayam ak alaaji Abdou Aziz Sy xam nañu mooy kan sa Ndiassane Mbaye jërëjëf donc dañuy wax ni loolu mooy ñun li nga xam ne nii ñu koy waxee fii nag képp ku fi toog te fekk ñu ci conseil de ville wala suñu conseil bële loolu mooy li ñuy défendre maanaam tooguñu fii di ko fi wax pour suñu génne dañoo commencé teg paay paay ñuy teg nag mooy les vingt et une rues yu ñu jot a baptisé jàpp naa ni ñëpp xam nañ ni Serigne Sall mu ngi ci Mohamed Fall Ndaxu mu ngi ci Euh, maanaam ay imaam yu mag a ngi ci tey bi ñuy waajalit yoo ñoo ñu ngi ci ñeneen na ci ñu mel ni ñoom de fii ñuy wax moom mii proposé la pour que carrefour bi nekk ci booru stade bi ñu tuddee ko Cheikh na Cheikh donc pour wax leen ñi nekk ci conseil municipal yi léegi du ay jaaxil yoo xam ne loo leen tegal ñu def li leen neex dañuy seet li arrangé dëkk bi ak li conforme ak croyance nit ñi ñu teg ko ci ci loolu la ñu nekk suñ ko nekkawul nit du ma toog fii di ko seede man su ma toogee léegi ci conseil municipal soit bu sama bos wala ma toog bu ville wala may dégg yi am ci yeneen conseil dama naan alhamdulilah nit ñi commencé nañoo ubbi seeni xel ndax ab dëkk référence te référence su dëkk mooy la ñu gëm nga ànd ci ak ñoom loolu lañuy ñuy tiitaroo ñun te it tëje di gërëm li ma wax démb Oustaz yàlla sàmm la démb naa fële ma ne su ma la ko waxee ñëpp ñi nekk ci euh, association bi ñu ngi ci par ricochet mu dal ci képp koo xam ne même bu adhéré wul ci association bi démarche am bokk na ci démarche bi association bi di woon mën ngaa bañ a bokk ci association te yem ak ñoom philosophie bokk ak ñoom démarche association adhésion la rek adhésion indépendante ku nekk ku mu ñëw dugg ku mu neex bañ a dugg mais mën nga caa bañ a dugg bokk ak ñoom li ñuy def wax naa la keroog ma ni démb ne lii am fii yenn saa am na ñoo xam ne dañ ko bokk ak yéen mooy di nga gis xale yi di défilé nit bokkul ci association gàddu si siwo ndoxam ñëw di ko may xale yi ñuy naan mais parce que bokk na ci une cause bi da nga gis koo xam ne dina ñëw toog fële ñeewantu xale yi yenn saay naaj bi ñuy dox muy metti ma bokk na ak yenn cause bi même bu fekkee adhéré wul loolu mooy esprit de de de de de d'ouverture de grandeur et képp koo xam ne jàpp nga ne rek am na lu ne ci moom loo xam ne bokk na ak yéen bi ngeen di défendre nga ne ko marhaban nga ne ko asalaamaaleykum moom mu bokk ci li li ngeen di def moo tax ma ne leen démb ñu ngi leen di ñaan te ñu ngi ñaan ñi ñu wax fii tey ñu ubbee ko Idrissa Gueye man damay wax ni ab du Bakh mi dama naan ko yéen moom yàlla ñu dimbali ba ñu ñemee leen ndax fu ngeen teg seen tànk fu dul foofu dañ leen di fekk fi ngeen ne ne leen lii ngeen def du sagul am tegg leen seen tànk te ci Idrissa Gueye la tàmbali <clears throat> ndax at yi demewul noo xam ni war nañ am kersak wax ko li ñu xalaat ndax jàpp nañu moom référence la Mouhamed Saloum Dieng mii référence la tey man jomb maa dem ci néegam tëjoog moom ne ko Mouhamed fi ma la dégg démb du sa place li ma la déggal démb du sa place su ma ko def rek naa fekk am na wala ma koy rusee Mouhamed Saloum Nasir di ñëpp topp di wax rek ba mu teg tànkam fudul foofu nga ba ko ci bu boobaa yow ak moom yéen a yem ñooñu ñëpp ak ñi mu teew ak képp koo xam ne yaa ngi ci daara ak jàngalekat yi ak tam imaam yi su imaam Mouhamadou Diop duggee ak imaam Mame Ngor ñu yóbbaale ñëpp tey nag yéen a ngi fii Thiès di feete Achoura bi di seizième édition bi ñu ñaan yàlla rek yàlla na yàgg te Imam Mohamed Diop yàlla li ci defal ndam yàgg ñu ngi ko àndal yëpp Imam Mohamed Diop nag ñun dañ lay ñaanal ndax xam nañ sa taxawaay li maam Goro kan wax ci yow ak ñi jiitu mënuñu ci yokk dara loolu ñaanal yaay jiite jàkkay cité Ousmane Ngom sunu jumaa grande mosquée de Somme yow la tam yàlla def ngay imam ratib bi kon ñun tam am na lu ñu ci yow waaye nag li góor gi doon wax rek El Hadj Makhtar Diop dañ yàlla dolli ko leer fa mu nekk dafa doon wax naan nit moom li mu baax yépp soo ko ko waxalee lu ko dal dañ naan yaa gémmiñ kon nag loolu ñun dañ koy soppi ay ñaan ñaan yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla jàppale la yàgg ñi nga àndal yëpp ngeen yàq taxee te lépp dem di am avancement. que ces enfants durant une année scolaire ont appris n'est-ce pas ce qu'ils ont appris à l'école en termes de connaissances en termes d'apprentissage en termes de d'éducation en termes de formation n'est-ce pas ils viennent le célébrer à ce jour à ce jour qui commémore le dixième jour du calendrier musulman. C'est aussi l'occasion effectivement de partage. Parce que dans l'après-midi, ces unions des DAR et comme Sénégal vont intervenir au niveau de la prison de Thiès, au niveau de l'hôpital régional de Thiès, pour apporter réconfort moral, soutien, n'est-ce pas, conseil, prière aux moralités et aux gens qui sont dans, au niveau de la prison. Tout cela donc pour témoigner, n'est-ce pas, de l'esprit de solidarité islamique. L'islam, c'est la solidarité, c'est l'entraide, nest c'est la consolation, n'est-ce pas, c'est le partage, n'est-ce pas, c'est effectivement le partage à tout, à tout point de vue. Et donc, effectivement, après ce défilé, qui consacre, euh, n'est-ce pas, le dixième jour dans le cadre de musulmans Muharram, ces, ces enseignants arabo-islamiques vont au niveau, n'est-ce pas, de Mac de Thiès, au niveau de l'hôpital régional, n'est-ce pas, apporter consolation, réconfort moral, soutien, prière aux malades alités, n'est-ce pas, et aux détenus se fait dans la, au niveau de la journée. waaw boo xamante ni yu bëri la xewoon am Adama Incha Noox Ibrahim Moussa Aïssa Seydina Mohamed kenn ku nekk yàlla sa ndam mi ngi am ci moom Achoura Seydina Mohamed cee bàyyi ko woon mag muy am na war a suñu nag waajur yi dañ ko jëloon ñoom di ko def bis di ko fetal di défilé comme bu 4 avril ñëwee gën a xale yi xale yi défilé mais dara yéen kenn lañ ci boole ñoom.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 حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان قلا لبني إسرائيل إلا ما قرم إسرائيل